Ouba, michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentad Ouba, bol Ouba. kaay ma wax Moi 77 629 0000 fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe Moi dibiteri Ouba Fou poulet Moi dibiteri Ouba Tena nag dibiteri Ouba Commandel, ñu livrer le fangane. Boule ne tamit nga Tok sa defal say commande tabaski defal say common boo amee xew defal say commande booy dalal ay nit defal say commande nga xam ne dibiteri Uba dalay defaral méchoui bu toog doo defar dara dibiteri Uba livré la cey Uba moo jaaxal réew Bienvenue dans votre scandale du jour de ce vendredi 22 mars 2024 fii ci VIP People comme ni ñu koy faral di defee saa nekk rek di lundi au vendredi ñu jël lépp loo xamante ne scandale la ñu daal di leen koy indil fii ci VIP People la chaîne qui vous informe juste et vrai ñu dooree nag mooy euh, li nga xamante ne kii ginnaaw bi ñu ko dalalee fële ca euh, seen web mu daal di relater parcours Amadou Ba mu nekk loo xamante ne lu ama ama solo la ci jamono yu ñu toll ndax nag bëgg nañ képp ku ñuy jiite ñu donc mu ngi ñu sétane vidéo bi ñëwaat. expérience dafa am solo. président Amadou Ba c'est 32 ans d'expérience au service du Sénégal 32 ans ma bëgg am luma fàttali rapidement. 2003 mhm. la ñëk directeur des impôts. L'administration administration bi nga mobiliser aujourd'hui les fonds publics mhm. donc tout ce qui est recette fiscale mhm. pour alimenter le budget du Sénégal 2003 mu suis directeur des impôts 2006 mu suis directeur général des impôts au domaine. sous le régime du président Abdoulaye Wade 2006 ba 2013 président Macky Sall 2012 la jël réew 2013 hmm. ñu fal ko ministre des finances on nga bu doon wala amul xam-xam on traverse pas deux régimes politiques comme ça en restant et en ayant des promotions dans son travail. Hmm. parce que lolu xam-xam moko moko moo 2013 ba 2019 président Amadou il a été ministre des finances et il a été l'un des meilleurs ministres des finances d'Afrique te lolu ñun waxuñu kon 32 ans de service ci Amadou Ba donc mu occupé post yu bëri de différents postes ndax nag nekk na fi ministre d' affaires étrangères nekk fi premier ministre nekkaat ko ñu renouvelé waat ko donc mu ngi noonu nee naa leen dafa baax ñuy fàttali sénégalais yi ñen ñooy suñu ay njiit fan la ñu jaar ak kan la ñu war a mën a fal jox ko suñu réew mi nga xamante ne dans mois trois mois dinañu exploiter li nga xamante ne mooy pétrole ak gaz ba tey ñu dégluwaat li nga xamante ne waa ji wax na ko ci Amadou Ba. Euh, euh, Bank Awards ñu dajaloo. Nous avons nominé le meilleur ministre des finances en Afrique ñu jox ko Amadou Ba loolu di ndam période bobo, la mobilisation des fonds du Sénégal c'est quand même lui Amadou qui était l'artisan, même le président Macky Sall Doniouni, Yoni, muy dem ci bailleur de fonds qui a mobilisé Khalis bi ngeen parce que de 2012 à 2000 à aujourd'hui nous avons multiplié par 8 le volume des investissements étrangers au Sénégal par 8 xaalis bi ngeen gis ñu tabax ko terre bi tabax ci def ci BRT bi def ci stade yi def ci aéroport bi li ngeen gis mu nekk fii ci infrastructure yëpp Je yoyu ma bëgg a Amadou Ba mi mom le président don yoni muy dem di mobiliser xaliss donc mu nek fi ministre des finances def fi bu ayib et l'histoire est là bu ngeen demee xol les performances du Sénégal de 2013 à 2019 ce sont de grandes performances économiques macroéconomiques. mais 2019 wa ma danel Fofu, ñu nommé ko ministre des affaires étrangères. Mhm. mu ñew ministère des affaires étrangères et des Sénégal extérieur. l'extérieur ñu toftal ci mom une carrière benen carrure kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo demoon na ci concours ñu daal di koy tànn meilleur ministre des affaires des de la des ministres des de de de la finance mu nekk meilleur koo xamante ne wa euh, shallah du Sénégal mais euh, au delà. de Sénégal dem nañ ba reconnaître ni que c'est un homme meilleur c'est un homme bien donc yaakaar naa war nañ ko mën a bàyyi xel mu bokk ci ñi ngi jongante donc nag Sénégal fi mu toll nii euh, dañu nekk ci benn euh, stade boo xamante ne du waruñoo xool li ñu nekk kese dañoo war a xool loo xamante ne moo gën si ñun donc yaakaar naa bu ñu bàyyee xel li nga xamante ni ñu ngi koy wax ndax nag candidat yi am nañu am parcours am ñu amul parcours lépp mu ngi ci sa dépend nag ci ñun kan la ñu wóolu kan moo ñu doy ak kan la ñuy fal ba tey ci seen scandale du jour ñu dem dégluwaat tax ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Cissé kàddu yi mu yëkkate jëmale ko ci Amadou Ba. maa ngi bàyyiloo xel sénégalais yi ci benn mbir muy ne xamuñ ko tooñ waaye ko fayu lañu xam dafa am xeet woo xam ne bala islaam di wàcc file ngor ak jom Pastef ak xam-xam bu ànd ak xereñteef dafa nekk ci ñoom bi islaam jógee ci araab bi bokk nañ ci ñi ko njëkk a teeru ndax ñoo doon buur yi ñoo doon commerce yi ñoo doon dem ak a ñëw te boo toppee seen lawtal dafay dem ba ci arab yi xeet woowu la nag nekk ci réew mi nekkin bu moderne boo xam ne saaga wuñ xaste wuñ tooñuñ lu ne ñu ngi leen koy yàq ñu toog téye seen bopp noppi gis ngeen Ousmane Sonko dem ba Casamance ne joolaa yeeg soose yi Macky Sall la bëggut leen ndax ku sant sant buy wane ne joolaa nga wala soose nga dana la tëj jiiñ la rebel kon na ngeen fonk seen bopp te jàppale ma ma jël réew mi bi mu tegee jomaay jomaay mi mu teg dem ba Casamance na leen suma ma faloo fii laay def capital bi garde reproché yu Ousmane Sonko yi buñ leen gisee ñu garde ko bu mir ma jeexee fan la ñuy ak ñoy ñan question bu may lacc la mais borom xel xam nañ lima wax li lepp nak su amé ba tay discrimination ni mu ngay continuer ci kaw ban xet halpular metti bu mu metti nak kelifa yang ci def lu reuy waye dama gis forte mobilisation ci ñom bo denn saaga yi ñu ñuy saaga dañu xas dañu bedd te ñun ñëpp ñu bokk réew mi bépp sëriñ bu baax bu sell boo fi dàq maama mu dem ci halpulaar ñun duñ tontu saaga ndax yaruñu ci saaga duñ tontu xaste waaye ki ngeen ñu jiiñ ne ci ñun la bokk dineen ko boot uuf ko votel ko ba ngeen xam ne halpulaar yi duñ ñu tuuti ci réew mi te kenn du leen xeeb lu dul ko xeebuwul kenn du leen tuuti lu dul ko tuutiwul kon ni ñuy def pël yi ñaaw na métti na naqari na si xol te ñu ngi koy dund waaye nag élégance biñ ci àndal ba tontu wuñ maturité guñ ci àndal ba tontu wuñ loolu mooy jàmmi Sénégal ci ginnaaw kañ topp nag ba mu indi maturité bi saaga wuñ xaste wuñ mooy Amadou Ba kon na ngeen xàmmee bopp fas bu maron bi biñ def Amadou Ba mi ñuy jiiñ pël te muy pël bu feer mi ñuy jiiñ Guinée Sonko taxaw setal ko ne sénégalais la ngeen wooteel ko ngir xaste yi jeex ndedd ak bandum nag suñ ko waxee xalpulaar a tax waaye bu demee ba nit ñëpp bedd pël mel ni pël yi dañ leen def dara di leen sosalakat wax lu ne ku ne di saaga pël yi te rusuñ ragaluñ dafay jaadu nag pël yi jël seen matuwaay boot seen doom wooteel ko premier tour wax ji jeex te su boobaa nag ñu xam ne Sénégal pour sénégalais la discours jàmm mooy jur jàmm te fu jàmm war a am wax ju rafet da caa jiitu.

lundi ñu commencé waat jooy mbaa mardi donc yaakaar naa lu mat bàyyi xel la ndax élection yaakaar naa li ci des du lu bëri moyen de cent euh, douze heures la ñu daal di dem ci vote yi te ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ñu génn si ak jàmm bisimilahi rahmaani rahim génn si ak jàmm looloo jara ñaan wax dëgg fa yàlla ndax nag ah sonn nañ trop te bëgg nañ dem élection su ko defee ñu mën a nekk si leneen ba tey ci seen scandale du jour de ce 22 mars ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. coalition bi dafa doon coalition bi aussi président Macky Sall doit ci daf ko daf ko marqué parce que li de a ci coalition muy APR APR Alliance pour la République doit dafa une relation bu particulière à président Macky Sall le choix c'est le président Macky Sall ko def ba xamni fi li di wax ñëpp ñëw nañu il faut le noter président de la République dugal na ci loxoom wax ak ñoom xam nga ñàkk xam état ak ñàkk xam ni institution yi di demee bokk na ci liy andi wax coow yu bëree bëree bëri conseil constitutionnel juróom-ñaar lañu ay diw dafa téye conseil constitutionnel mooy da nga téye institution bi téye juróom-ñaar yi magistrat yi may mun xam nag loolu ay wax yi caaxaan élimination Karim Vous n'avez rien à voir avec ça. Euh, les pots de vin dont on parle, vous n'avez rien à voir avec ça. Les pots de vin, il faut qu'on faut qu'on Pour quel résultat Pour nous éliminer Karim Non. Karim, potentiellement, on peut faire alliance. Qui c'est ma carrière Le meilleur santé sur le bord. Moi, inspecteur, il m'a appelé une carrière. Bon, Amélie Baribou. bi déclaration de patrimoine bi ñu ko waree def def naa ko bi mu nekkee ministre des finances bi ma génnee ci gouvernement def naa ko bi ñu ma nommé premier ministre defaat naa ko. parce Sénégal toll na foo xamante ni tey jii boo xasee ba yegg président de la république fonction exécutive c'est-à-dire liy doxal parti bés bu nekk la fonction exécutive kooku mën nañu ko jox keneen. Pourquoi Parce qu'il faut protéger l'État davantage. Nous sommes 19 candidats. C'est un choix entre la responsabilité et l'irresponsabilité. C'est-à-dire Mais proposition bipolarisation. Proposition c'est de l'anarchisme. Proposition

par sortir au grand jour. On m'a accusé de, tout. Mon, mon pasteur le Nidekomor, moi, financement positif. Maintenant, on dit que non, c'est pas vrai. c'est l'inverse ñoo ko déggandoo coalition bi Macky Sall da ko marqué ndax nag benn Bokk Yaakaar moom it am na doole bu baax baax ci biir euh, euh, ki ci biir li nga xamante ne mooy APR yemul ci loolu daal di dem ba leeral ne nag liñ koy tuuma ci wàllum alalam ci wàllum am na lu dul jeex bis bu jotee dina feeñ te dina leer ndax déclaration de patrimoine ku ci nekk war nga koo mën a def su ko defee ñu xam ki ñuy fal xam kan la donc yaakaar naa pour ñi nga xamante ne ñu ngi laam-laamee Amadou Ba day sàcc du sàcc am na alal bu dul jeex te nag dem nañ ba ci biir interview bi dégg nañ li nga xamante ne wax na ko mooy këram bi nga xamante ne mu ngi almadi nee na nag sonn na torop sonnoon na torop ci li nga xamante ne mooy ay bor pour mu mën a fay këram googu pour mu mën koo defar donc yaakaar naa wërsëg yemul donc bu euh, déclaration patrimoine bu jotee nag dinañ xam fu dëgg gu féete ba tey ci seen scandale du jour toujours Amadou Ba fële ca Ziguinchor man nag dama am mbégteel ndax nag yaakaaroon naa Ziguinchor moom wax dëgg fa yàlla ah, dëgg la ci Sénégal la ndax nag ah jomaay nee na bu faloo nag mën na fa yóbbu capital économique bi mën na fa yóbbu capital bu senegal donc nag ñoom ñu génn en masse daal di accueillir ki nga xamante ne Amadou Ba du montage du lu yàgg démb la nañ jëm seetaani vidéo bi. mu gisaat mbooloo bi. sans plus tarder, sans plus tarder, nous allons la République du Sénégal. Aujourd'hui, toute la région de Ziguinchor, les autorités, les sympathisants, les militants, les adhérents, tout le monde est là. C'est le président Amadou Ba, c'est le président Amadou Ba, c'est le président Amadou Ba, c'est le président Amadou Ba. c'est le président Amadou Ba yaakaar naa Ziguinchor nee nañu waaw Amadou Ba léegi nag xam <laughs> nga Macky Sall dafa newoon seen yaram dafa tàng seen yaram day xasan bàcc ah bàcc yi nag dimanche dina commencé Jomaay bàcc wala Anta Babacar mooy bàcc wala Idi mooy bàcc lépp dina leer dimanche. ay bu dimanche man dimanche fu mu nekk nii xam nga xalaatee comme si maanaam dimanche boo xamante ne Balla Gaye da ko war a bëre ndeysaan da ngay yàkkamti dimanche jot dimanche boo xam ne Modou Lô dafa war a bëre da ngay yàkkamti dimanche jot ak dimanche boo xamante da nga daan yàq dimanche boo xamante ne Yékini ci war a bëre. ñëpp koy yàqanti donc nag dimanche bii ah nañ ci dem ak jàmm ak salaam ba tey ci seen scandale du jour El Hadj jouf mu nekk koo xamante ne moom it tax Lion la ndax nag joueur la fubal na ah, yóbbu na Sénégal fu nekk ci wàllum ah, match ci wàllum fubal moom nag reconnaître daal di taxaw ne àndoon ak Macky Tay Amadou balay lay àndal nañ dem seetaani vidéo bi ñëwaat. correct nañu si élection yi bu nekk élection nak ñun jamm lañ ci wut. Mhm. et di wax rek ni durant euh, durant réunion président Macky Sall yépp gis nañ ma ci gannaawam et que je crois que ni man gor la président Macky Sall durant des années. tay bi mu tànn nit ba paré makoy bayyi ça veut dire que ni aw ma lu ma gëm aw ma lu ma bëggul. Mhm. dama ni man sama famille nak mën nañ bokk ku nekk fu mu ko neex mais man El jup la wax en tant que patriote.

aujourd'hui la personne qu'il faut au Sénégal en mm. toute humilité mm. nit wax waxul c'est le président Amadou Ba ah oui parce qu'il est légitime ah ah. il est crédible ah et ensuite le plus important mm. il est très compétent Et là, Diouf mën nga ma may cinquième président de la République c'est dans les mains voilà gis nga gars yi loxo baa cinquième président Amadou Ba monsieur Amadou merci beaucoup merci beaucoup ah waaw am nga le droit de wax dëgg fa yàlla droit. Mhm, la neexee waaw bulane de bulane he ànd ak Macky bulane he andak ak Amadou Ba sénégalais nga ah, am nga ci droit am nga ci plein droit yon may na la ak ak yelef sa ak ak sa yelef ci réew mi may na la nga ànd ak ku neex bo tànnee Amadou Ba nak tammi mais am nga ci droit voilà donc nagn ko nangul nagn ko xam nga nagn ko nangul choix am au fait il faut ñuy nangul ku nekk choix ba tey ci seen scandale di jour ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. di ziare sama mbokk mi macha allah di rafetlu sa xam-xam di ko nangu lool it ndax séeréer nga ñun ay séeréer lañ maa ngi dégg nga wax lu am solo nga ne wate bi ci gàttal ci ni ma ko mën a déggee mooy baatin la. nga ne waa lono Macky Sall lu nu lal waa kër yéen di ngeen ko lalé bo faté ne ni nga doone séré ñun noonu leen doone séré suto ñu ci xam-xam suto ñu ci baatin té ñun Amadou Ba dong la ñu topp bu laaje dag sunuy cër joxé ko bureau dañ koy def gis nga lima bëgg Sénégalais yi xam ko moy sa bo yëkëté sa loxo né ma fi ñëpp na nga yëkëté sa loxo benen loxo né ñëpp ma man lolo tax yalla bind ñaar loxo gis nga affaire bi fi ngeen ko teg nii du foofu de lu loxo def loxo mën na ko tindi ñoo ngi yéen ba ci kanam. Sénégal nag wax dëgg fa yàlla dépassé nañ fii ay diw séeréer la jomaay la war a àndal ay diw pël la Amadou Ba la war a àndal ah loolu ñu moom wax dëgg fa yàlla ñun dépassé nañ niveau boobu on est au vingt et siècle c'est genre de truc ne marche plus avec nous voilà am nañu xel ñu ngi xalaat. tey pël baa ngi sëy ak séeréer séeréer baa ngi sëy ak pël bi sarankule baa ngi sëy ak euh, pël bi yooyu dafay jeex kon naret ret il y séeréer yoo xamante ne Amadou Ba kese lañ bëgg comme ni ko waa ji waxee ci biir vidéo bi il y a de ces pël man samay rakku pap fii lañ teg Sonko fii lañ teg Sonko da ngay xool seen statut nga xam ne ñii dañoo bëgg Sonko gëm Sonko et ay pël lañ pur et dur suñu juróom ñeenti maam yëpp ay pël lañ boo ju seenoon xaaju guddi xam ne ñii ay pël lañ mais Sonko la ñuy àndal donc ces histoires là doivent finir au Sénégal dafa war a jeex et ça n'existe plus nouvelle révélation politique bii rek moo ko fi bëgg a indiwaat te duñ ko nangu on va pas accepter ça ba tey ci seen scandale du jour ñu dégluwaat tax paa bi li mu wax ci jamay Faye te dama ne kii nuy bëgg a jox réew mi nan ko xool discours am boobaak tey daa dodom am nit nag boo koy jox am réew mu dodom bu demee Nations Unies nu mu waxee waat na si ba ba ba ba ba ba nooy waxee dama ne nooy waxee ñoom nooy waxee tubaab yi nan waxante dëgg am réew bu leen ko fooyee lii du am laajum quartier lii du laajum quartier de du laajum maire xam nga lii laajum lan la mooy président de la république nanu xool ñuñ koy jox ak kuñ koy jox boo choix bi gën ci réew mi mooy kan la président Amadou Ba. paa bi nag engagé nga nag waaye kan moo la ne jomaay nii lay waxee ah déet yaa ngi tooñ nag jomaay du waxee nii nag. jomaay <laughs> daa réglé <laughs> man nee naa jomaay problème mbooloo la am ndax ku seetaan jomaay démb euh, seen people te ngay ni waaw jomaay nit la réglé na mais jomaay problème mbooloo la am bu nekkee ci mbooloo day patiner du mën a mënul mënul convaincre au fait mënul wax et nag président nag ah à tout moment mën nga nekk ci mbooloo ndax inauguration yi mbooloo la euh, cérémonie religieux yi mbooloo discours ya mbooloo aha président nag foo nga ñeme sonko nag dafa mel ni mbooloo da koy déranger parce que ku xool sonko miy wax ci biir meeting yi ak sonko miy wax

ñu sétane vidéo sama yaram bi xam lu fi moi j'aime bien travailler voilà donc euh, c'est c'est ma passion c'est mon divertissement aujourd'hui focus campagne électorale et si on est élu focus travail régler les problèmes H24. bu la Sénégalais yi est-ce que dañ la fal premier tour est-ce que dañ la fal. am naa ci yaakaar bu wér nag. premier tour deuxième tour. premier tour. sa yaram nag day xasan liggéey nag bu ñu la ko wokkalee ba pare nga toog nee naan wokk ba dafa métti moom dinga am problème Amadou Ba Ba nee na yaram bi day xasan pour liggéey Sénégal léegi nag xam nga dara buy xasan da ngay ne wokkal ma fii léegi nag buñ ko wokkalee maanaam buñ ko votelee maanaam wokkal bi mooy vote ñu wokkal ko ko Amadou Ba ñu wokkal ko ba affaire bi kii xasan bi bàyyi ba mu sentir boppam toog naa li ma doon wokkal dafa saf lolou duñ ko nangu Amadou Ba loolu moom fexeel ba bu ko sa xel bouclier euh, je te respecte rusna la torop mais nak ah sa président nena, yaram bi day xassan buñ ko wokalé ah na fexe rek assumer hmm baxna dinañ ko vaar de si ñi candidat ñi yeb luñ fi wax yëpp bu neexee yalla suñu borom vidéo yi ma ko denc ñëpp lay top ni may topé ka sé Baara Njaay mi war a sëyi à tout moment waxuma day sëyi force bëggeel force moom amatul mais à tout moment moo ko wax baax na ba tey ci seen scandale du jour ay waay waa pa waa waa waa waa waa APR na ngi tooñ nag waa APR na ku montage lii nag war na yàlla soxna Fatou démb boo seetaanoon maa xaasaa lii lan la kay waaw maa xaasaa lii lan la mhm, mhm. ma ne ah Diomaye waaye ku montage lii wóor na ma ni waa APR la waa APR nag yéen a ngi yéen a ngi yéen a tooñ lii kenn du ko def lii président jaambur ngeen def nii eh, Sénégal la am na ñoo am na ñoo nag yàlla baax na tey koor gi daa teel sof nag ba tey ci seen scandale du jour Euh, quartier général démb seen gan du Ba la woon ginnaaw bi ñu ko dalalee nag Bouba Ndour daal di koy laajte ci accusation yi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko ci moom sosal na ko wax na ko donc moom kàddu yu rafet yu mu ci yëkkati laa bëgg ñu seetaan ñëwaat. ñoom ñu génn def seede bu négatif ci yow doy dëgg jiiñ la luubal jiiñ la leneen ne la. yow yaa yées président Macky Sall du sama ay tu du sama ay kàddu kàddu Ousmane Sonko la yow boo doon seede si ñoom ñaar ñi nga bokkal collègue lan ngay seede ci ñoom. xam nga nag man wax ci nit lu ñaaw yàlla def na ni nag adoowuma loolu mois je suis leur grand frère man maa leen jiitu ci administration bi. yàlla dafit kenn ci ñoom jàngal naa ko xam nga am na loo xam ni buñ koy wax nit ki masala ñu ne kii dafay luubal nga nekk ci administration amoo fa nijaay amoo fa ndey amoo fa baay chef de service nga nekk ko mais yow da luubal rek directeur ñu tànn la dangay ngay luubal rek directeur général ñu tànn la da ngay luubal la te gisagoo rapport bu bind ni kii dafay def nii walla dafay def na le xamal ni kooku ay ay ay ay wax la rek ay. ni ko non bàyyi mu toog non non Babacar Babacar dimbale ma rek. moom day day gis Amadou Ba di waaj jël mu ko eh. tegal mais moom laay wax ni mais non loolu laa moo tax ma ne ko luubal da ngay rafetal. campagne la ñu nekk li ñu laaj kañ leer man ma nekk directeur général. Mhm. la ma mën a def sama bureau. fi directeur général bi lu mën def ci bureau mhm. journaliste bu nek fi mën nako koo xam. déedéet ceeb yi muy rawale bureau duñ ko yek xam nga. Euh, euh, Sonko ne pas candidat en résumé Sonko mënul won jot ci yow. non non pas jot pas non pas mënul jot ci ma non non non on a on avait des relations très correctes bi nek un point il dirigeait le syndicat moi j'étais euh, directeur général bo jëlaatee. ay waxam di nga dégg ay wax yoo xamante ni. Ah, mais mais lan ngay lan ngay seede sa euh, si si ñoom. man loolu question bu am import lan ngeen fan ngeen jaar. bu dee da nga jaar ak comme agent wu ah, impôt yëpp daal en même temps la question ci écran ñu baax lañu sama njaboot lañu yàlla dafa dogal moom ci coobare moom moo boole ci impôt domaine mënoon damaa def leneen defuma ko. Mhm. impôt domaine cër bu fa nit war a mën a am. cër bu fa nit mën a am war a am. yàlla defal na ma ko ci kër gi. ah lii de nag mooy yëfu nit nag <laughs> xam nga nit il faut être intelligent Sonko publiquement dafa yàq Amadou Ba Amadou Ba publiquement mu defar sunk parce que dem nañ ba ne ko seen relation ndax amoon amoon na accès ci yow mu tontu mu ne ñu ne ko ñu bëgg ko jaxase nag bëgg mu leer pour mu gën a leer xam nga léeg-léeg journaliste bi cox cabaxal la benn question pour bëgg lu leer. ñu ne ko ndax amutoon accès ci yow mu ne déedéet on avait des relations <laughs> sonko nag sonko nag gàcce nag du la rey nag sonko ba tey ci seen scandale du jour Anta Babacar ngoom na dugg na ci guerre gi ba mu saf ci sap sonko la attaqué ak jomay dama ne duma ko tontu mais fii laa koy tontoo fii ci département de Mbour jàkkaarloog waa Njagañaaw nit da am njëriñ dama bëgg a xam fay Faye Bassirou Diomaye Faye mii taxaw di wax ci man di wax ci ñun xanaa dafa amul programme xanaa dafa amul projet xanaa moom li muy wax gëmu ko taxamu ko benn sujet rek la xam benn sujet rek la mën muy sujet Ndingler sujet Ndingler sujet Ndingler ba kañ bëgg nañu xam benn affaire ma ngi leen koy laaj yéen waa Ndingler yéen waa Ndiaganiao ban njëriñ wala ban emploi la leen fa créer démb balaa tey zéro yow sa gox bi nga dëkk man maa la fa ëpp njëriñ garab sam kooko fa gis nga politique bi dama ne woon du ma wax waxu ñeneen ñi mais par yenn saa dañ lay xëcc on va vous demander monsieur Bassirou Diomaye Faye nous la relève on vous demande de relever le niveau relever le niveau te nga bàyyi usurpation d'identité yow doo Ousmane Sonko Ousmane Sonko du yow te boo moytuwul fi nga jóge di nga fa dellu ndaxte citation directe dinaa la ko servir boo taxawee ne ñun dañu jël suufu Ndingler dem uti ci bor ci banque ba di nga wax ci ban banque lañ fa utee bor yow foo waxee yaa ngi wax safaan noppil ngir yàlla noppil ba nga noppee xëy na sax lañ si amoon yaakaar mais fi ñu toll yaakaar dafa tas xam ngeen li wóor ba wóor mooy Ousmane Sonko du Bassirou Diomaye Faye xam ngeen li wóor ba wóor moy Anta babakar moy Anta babakar mbir mi day leer ñun jamm lañu bëgg liggéey lañu bëgg bu mënee wax waxu liggéey naka wax mais nak nañu bayyi tout tranquillement voilà. ki Njaga ñaw la dëkk euh, Hmm, Anta Babacar nag Anta Babacar nag yaa am fit nak Anta Babacar nak noy demee ba dëkk jambour nak difa difa difa ki nak dem ba ci buntu kër kër jambour ngay wax lula neex. tamit provocation yi pour lan la ah yàlla baax na lii jomaay deful dara foofu ah jomaay na lañ bëgg a fal nag jomaay mi deful dara ci département boobu jomaay moomu lañ bëgg a jox Sénégal yàlla bëri na sutura amul ay moor dina am ay blessé de ba tey ci seen scandale di jour ah, kii di maam Diarra Fam di honorable député PDS mom nak japp nañ ni dafa dem ci Amadou Ba ba tax na rek ay boy dem kërëm daal di koy lakk nak di woy hmm di woy Sonko ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. Cheikh Fam. la population de est sortie. kër jàmbur di yuuxu Sonko ñii lañ bëgg a fal de ñii lañ bëgg a jox réew mi jox pouvoir yëpp hmm. barki yonent bi ñooy raw ñooy raw waa waa Gàmbi ba Yaya Jammeh toogee foofu hmm. ku wax sa xalaat duñ la gisaat ku and ak ñom duñ li gis ku rey ñu rey ku sacc ñu dag say loxo hmm. euh, yalla keur jàmbur ndax lan àndut ak yeen mu ngi waja dem and ak sen ko man je dis que Amadou Ba ak ñom sonku politique la rek mais du combat c'est pas du combat politique nak xam nga tay bu nit toge xalé bu ndaw di xass Amadou Ba wala di xass Macky politique la mais du seen du du ma du combat en du combat en dehors du politique du combat mais nag lii dafa ñaaw kër jàmbur bi ngeen lakk pour lan la kër jàmbur bi ngeen lakk pour lan la yéen sóoroo leen nit mu ngi fa ba pare li ma gën a métti kër gaa ngi lakk de ñoom ñu ngi woy Sonko pour te dire que ay ay ginaar lañ ginaar xam nga ginaar mën na la romb fii léegi dem douche sa kanam mën nga fomp say karo ba mu set ginaar bi romb la tilimaatal ko ci saa si ñii ay ginaar lañ ba tey ci seen scandale du jour démb nag ab nakar lañu euh, fanaanoo mu nekk nouvelle bu diis di Mamadou Yatassay mi nga xamante ne mooy borom Aquaterra di ndox bu neex bi ndox bu baax bi moom nag moo wàññeeku démb daal di wuyu boromam ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko waaye nag dafa am vidéo boo xamante ne lu am solo la moo tax àdduna na ñuy rafetal dañ jëm déglu kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko jëmale ko ci suñu ay candidat yi nga xam ne ñoo war a jongante ndax nag moom bu ñu fàttewul bokkoon na si ñu demoon wuti parrainage pour mën a dagan baatu askan bi. ñi nga xam ne ñi ngi jëm élection. muy vingt candidats ma leen di ñaanal ñu dem ci élection yi ci jàmm ak salaam ndax nguur nag yàlla koy joxe ku ko jox ñu xam ne kooku la ko jox ñu ànd jàppale ko pour mu liggéey Sénégal. ndeysaan moom nekk yaakaar naa ku ko waxoon ni du fekkee li nga xamante ne bëggoon na ci bokk ah, dina ne déedéet man mii dinaa doon ne déedéet pour vous dire que yàlla rek xam yàlla rek a mën te ci biir vidéo bi dégg nañ kàddu yu rafet yi nga xamante ne yëkkati na ko doonte njortu woon ni yàlla dina def lii mooy li gën ndax yàlla lu mu def rek moo gën te lu mu gën def rek nee na ñu sant ko ak nu mu munti doon dañ koy sant parce que moo ñu war donc euh, dañ koy ñaanal rek suufoo yeeg ci kawam te nekk di ñaan yàlla conseil bi nga xamante ne joxe na ko ci biir vidéo bi ñu appliquer ko mu ñu def ko jël ko daal di koy ah, gànnaayoo ndax nag lu baax la lu baax kenn du ko jël sànni dañ koy jël daal di def ci ñun te nee na leen yàlla mooy fal te ku falu rek nañ nangu ni diwa falu ñu continuer ci leneen donc ñu koy ñaanal di ko jaale mboole mu sénégalais di ko jaale waa këram di ko jaale képp koo xamante ne homme nga nekk fii ci Sénégal di dimbali sa askan di joxe ay social ñu la koy jaale di ko ñaanal yàlla yërëm ko ci barke ah, soowu Ramadan bi nga xamante ne ci la génn àdduna boole ko ci guddi al ci guddi alkamis mu nekkoon démb donc yal na ko yàlla yërëm yàlla xaree ko aljanna suuf sedd ci kawam te yàlla yéexe ñu scandale di jour lii lañ leen indi loon ci wàllum scandale di leen jox rendez-vous rek ba lundi <laughs> ay waay lundi dina neex waaye ah lundi nag mën ah, mën na bañ a neex aussi ah parce que lundi mën nañ ne deuxième tour yàlla bu ñu dem deuxième tour dañoo sonn waaw dañoo sonn trop dañoo sonn wax dëgg fa yàlla donc ba lundi ci beneen numéro scandale restez connecté suñu ay programme dafay daal di continuer fii ci VIP People s'informer juste et vrai jigen ju fi sa karaw dagg yow la neex ak crème capillaire Neyman di crème bi gën efficace ci traitement de cheveux indil nañu leen ko bu fi kenn demati ba Inde jënd ay cheveux naturels wala di ci sonn jigen di ci bëgg karaw ñu daal di lay defal traitement bi sa karaw di jolli prier di gën a di gën rafet ngay gëna a yañ bu la xol daal di lay sopp naw la bëgg la ci saasa ñu jox la crème capillaire Neyman di crème bu efficace ci walu karaw crème bo xam leppam dafa daal di naturel ba noppi efficacité am ñëpp ko seede ci Sénégal moo taxit jigen ñepp ñu ngi daw fële ci Sacré-Cœur 3 ci wetu boulangerie zone ba weesoo Auchan bi di def seeni commande ci nu mu gëna gawé wala sax nga tok fo mëna nek ñu daal di la koy fekk livré la ko ci nu mu gëna gawé gaawee gaaw au 77 751 59 59 wala 33 824 25 10 ak crème capillaire Neyman jigen ñepp ngi yànj di rafet ak seeni karaw yu gudd noppi pitam di plier di ness nessi mu jox la éclat bu doy war defarat sa karaw bu mu daal yagne manila crème capillaire Neyman Bile kenn jëndatul ay cheveux naturel kenn sonnatul ci ay mees ndax nak sa karaw kott daf lay daldi doy ak crème capillaire Neyman moy bu baax bi daw leen ci Sacré-Cœur 3 ci boulangerie jaune ba après au champ Bile ngeen def sen commande wala au 77 751 59 59 ou au 33 824 25 10.